Uh, Mamadou Thiam euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay uh, Soxna Fatou di la gërëm di la remercier di nuyu waa Rewmi FM di nuyu donc auditeurs Sénégal yi leen di déglu yëpp. jërëjëf uh, yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ci euh, waxtaan wi ak disponibilité bi euh, ma fàttali jusque ni yoroon nga fi cellule communication bu présidence de la République sa xam-xam aussi dafa màcc ci communication politique ak publique yaa ngi bokk aussi ci ñi yore communication wu Benno Bokk Yaakaar di. Euh, kon euh, groupe bi nga xam ne moo ëmb euh, lépp luy parti nekk tey ci pouvoir bi alors Mamadou Thiam fi ñuy dooree mooy communication wu président de la République en tant que ku yoroon communication président justement tey noo gisee critiques yi ñuy def ci kàddu yi muy yëkkati souvent nit ñi jàpp ne ay waxam daal dafa xaw a dëgër lool. waaw xam nga Fatou dañ naan critiques yi lu normal la ndax wolof da koy wax ku boot bukki xaj boobu la. président Macky Sall sénégalais yi dañ koy critiquer et c'est normal que ñu critiquer ko ndaxte moom mooy le président de tous les sénégalais président Macky Sall am na ay sénégalais yoo xam ne nii duñu kontaan ci yenn yi muy def ma li muy wax c'est tout à fait normal ndaxte moom mooy sen président boo yoree sa président nga dénk ko réew am nga sañ-sañ bu amee lu la metti nga wax ko l'essentiel na nga ko wax ci anam yu rafet te président Macky Sall en bon démocrate nekkul koo xam ne loolu da koy bañ du bañ moo tax ba boo duggee sax ci page Facebook président de la république ci commentaire yi di fa gis ay nit yoo xam ne dañuy commenter di ko critiquer mbala sax di ko xas te commentaire yooyu kenn du ko suprimer kenn du leen bloquer kenn du leen dindi kon ku mel noonu kenn mënul taxaw wax ne moom nanguwul critique ku bàyyi ba ñu dugg sa biir kër say compte réseaux sociaux yi nga animé mbala sax personnel di ko animer ay nit di fa ñëw di def dee commentaires négatifs nga bàyyi leen fa kooku bañul commentaire bañul critique dafa fekk rek ne président Macky Sall wax na ko nee na moom Sénégal ci xolam la ko def te dafa jàpp ne askan wi liñ ko fal falaat ko mission bu am solo la moo tax président Macky Sall liñ ko xamee wax tuuti jëf ju bëri jàpp na ne moom li mu war a def mooy jëf jëf ngir Sénégalu tey jëf ngir Sénégalu ëllëg bañul tamit ne ñeneen ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom li ñu war a defal Sénégal mooy wax ak xaste ñu ŋàññi ñooñu am nañ droit def ko xëy na ñoom noonu la ñuy gisee aduna bala xëy na ñooñu loolu mooy seen objectif waaye moom li mu wax di ko bañ dana du nangu koo xam ne ni xaste moo tax nga jóg nga koy tardeel ndax boo tardelee président de la république du Sénégal Sénégal nga tardeel moo tax mu ñaan tamit képp ku bokk ci moom nekk ci njabootam nga farlu ci liggéey bi takk sa tubay <coughs> fagaru liggéey ngir askan wi ndax loolu ñoo looloo tax ñu teg ñu ci démocratie nag lañ nekk ku ci nekk am nga droit wax lu la neex waaye nañu nangul tamit ñun ñu wàññi suñu wax yokk suñu jëf ngir Sénégal mën a jëm kanam. ñu ñëw euh, tey ci euh, communication wu gouvernement am na lu ko wutale wax nga ko sànq ak communication politique mais tey en tant que expert euh, bëgg nañu xam ci yan norme la ñaari communication yu war sukkandiku ngir jaar yoon. waa xam nga communication première norme bi mooy dañu war a séparer distinguer li ñuy woowee communication publique ak communication politique ndax communication politique li tax mu jog mooy euh, fal benn nit bala fal benn groupe nit c'est communication boo xam ne ni dafa féete mu wutee nag ak communication gouvernementale di communication publique nga xam ne dañ ko fi teg pour askan wi foofu péete waru faa am dañ ko war a teg pour que askan wi ku ci nekk li nga war a xam nga xam ko ku ci nekk sa àq ak sa yelleef tamit nga xam ko ku ci nekk tamit li réew mi namm pour defal la ko mbala lim la defal nga xam ko pas nga xam ko seulement ci propagande ndaxte communication politique moo propagande mais nga xam ko pour nga mun koo jëriñoo faatu président Macky Sall defar na li ñuy woowee couverture maladie universelle maanaam toog na mu jàpp ne amul benn sénégalais boo xam ne nii war ngaa feebar wopp ñàkk dërëm tax ne doo mën a faju loolu am na sénégalais yu ko xam waaye communication publique mooy tax ba sénégalais yëpp xam ko communication publique mooy tax ba képp koo xam ne nii am nga ci droit nga mun cee dugg mun cee jëriñoo yàgg sa njaboot yàgg sa soxna yàgg say doom donc loolu mooy communication publique donc boo nee ah boo loolu communication publique nga baal ma. Mhm. première règle bi donc mooy ñu distingué communication politique partisane. boo xam ne xëy na loolu moo ñu indi ci taxawal wala moo leen ci yóbbu euh, bureau d'information. waaw foofu laa doon daanu. voilà ba tax na président Macky Sall def benn réforme maanaam indi benn coppite. coppite boobu mooy lan mooy moom am na ay conseillers en communication Euh, ministre yi am nañ seen conseil en communication et cetera mais mu teg li ñuy wooye bureau d'information gouvernementale bureau d'information boobu seen liggéey mooy dimbale nguur gi dimbale état bi pour que lépp loo xam ne nii askan wi war na ko xam ta mu mun koo jëmale kanam ak foo mënta bokk ak moom foo mënta féete nga xam ko ndaxte information dañu jàpp ne comme ni ko constitution waxee droit la obligation la ci état bu moderne droit boobu nga jox ko ñi nga xam ne nii ñoo ko yelloo lool la président Macky Sall def def ci jéego bu am solo beneen jéego bi nga xam ne nii war nañ ko def mooy ñu intégré que ni communication dafa changé communication dafa changé loolu tamit président Macky Sall def na ci ay jéego lu tax mu def ci ay jéego communication président Macky Sall moo njëkk a mettre en place une cellule de communication digitale maanaam cellule communication boo xam ne nii bokk ci bu mag bi lépp luy liggéeyam mooy réseaux sociaux taawu Ablaye Wade bala taawu Abdou Diouf loolu taawu Abdou Diouf waaye amul woon taawu Ablaye Wade ñi ko yoroon ay informaticiens lañ maanaam xamuñu dara ci communication dalay won changement de paradigme bi nga xam ne ni président Macky Sall indi na ko lim ko indi tamit leneen lam ci en fait leneen lam ci yokk mooy ci communication boo koy def da ngay nangu ne yow yaa jiite da ngay nangu ne yow yow yaay diriger yow yaay jël ay décision waaye munoo tere tamit beneen askan wi tamit ñu wax li ñu xalaat président Macky Sall di ko jëfe ndaxte ci démocratie la ñu nekk wax na ko keroog manifestation yi ak marche yi loolu tamit day dimbale communication parce que day tax violence bi waroon exprimer wu autrement ñun ñu exprimer ko par l'écrit ou par la manifestation donc pacifique mu wane ne marche yi ñuy autorisé ëpp na téeméeri yoon marche yi nga xam ne nii kenn autorisé wu ko mu dem a dem a dem a dem a dem ba ci biiru këram virtuellement mooy compte Facebook yu mu yor yow bu la neexee nga dugg fa nga critiquer wax lu la neex kenn du ko supprimer kenn du la dindi dañ la fay bàyyi. mais ñooñu di ko critiquer am na ñaari fan wala ñett justement euh, si seen kaw la dal lool sax moo lay taayal waxtaan wi euh, mu ne am na ñoo xam ne euh, xëy ñu amuñu pal tamuñu place dañuy yendoo di critiquer li nga xam ne moom lay def kon loolu yooyu kàddu naka lañ ko war a wa waaw xam nga li nga wax am na solo faar da nga ne naka lañ ko war a déggee parce que wax jafewul déggin moo jafe président Macky Sall dafa xam luy politique. xam lii politique moo tax mu xam ne lu mu mënta wax lu mu baax baax baax baax baax am na ay sénégalais yoo xam ne ni ay politiciens lañ yu feeñ fës mbala ñu doon ay politiciens yu làkku lu président Macky Sall wax lu baax ñoom du leen intéressé dañuy xool rek lan lañ ci mun a fësal loo xam ne jàpp nañ ne dina taxal daram président Macky Sall xam na loolu mais mënu leen ko tere ndax démocrate la moo tax mu ne ñi nga xam ne ni ñoom wax lañu ngemboo am nañ droit wax waaye man duma leen topp damay liggéey mu yamu ci mu ne képp ku ànd man bul topp ñi nga xam ne nii wax lañu ngemboo ndax ku weddoo làmmiñ boo noppee rafle man li ma war mooy ma liggéey pour askan wi bi koy wax kaf la woon ak foo agréé parce que mi wax sax ñooñu loolu rek la ñu am pour dund loolu la tubaab di woowee euh, ironie mais comme dañoo nekk ay samba boobu yoo xam ne nii lu ñu mënta wax lu ci baax baax baax baax baax baax baax du leen intéressé li leen intéressé rek mooy xool lan moo ci gàtt mala laal lañ ci mën a gàkkal ñu gàkkal ko loolu nag lu normal la ci espace politique lu normal la ci espace public dafa bokk tamit ci yeneen condition yi yeneen condition yi mooy lan mooy boo jiitee nga xam ne espace public dafa nekk dafa mel ne làmb dañuy bëre booy bëre di nga bàkku tagg sa bopp waaye ki ngay bëreel du la bàkk du la tagg nga nangu ko xam ne loolu mooy làmb waaye du la tere yow li nga war a def boo waree entraînement nga entraînement boo waree wut say xar fa fuufa nga wut say xar fa boo waree defaru nga defaru boo waree bëri nga bëri ba ba wut daan jotee nga daan moo tax ma ne président Macky Sall communication communication nit rek koy def. Hmm. du machine moo koy def. xëy na mën nañ wax am na loo xam ne peut-être nañ ko yokk waaye kenn sañul tax ne ni communication Macky Sall baaxul ndax communication baaxaayam wala ñàkk baaxaayam ci ñaar rek lañ koy xoole hmm. benn bi mooy est-ce que askan wi réforme yi nga teg est-ce que ñoom nangu nañ ko mooy yow est ce que boo laajaatee réew mi yow mi ko yoroon est ce que joxaat nañ la ko or loolu boo ko xoolee di nga gis ne amul benn réforme bu Macky Sall def ba mu tax dëkk bi de di nga gis ne amul benn élection boo xam ne nii Macky Sall bokk na ci mbala ay ñooñu Macky Sall bokk nañ ci au niveau national mbala benn référendum boo xam ne nii Macky Sall dafa laaj askan wi seen xalaat askan wi war ko kon day wane ne globalement Macky Sall liggéey bi muy def ak communication bi mu ci boole yo askanu Sénégal ñoom nee nañ gonga nee nañ waaw ndax bu nekkee heure boo laajaatee ñu jox la kon yow ñi ngay laaj wóolu nañ la gëm nañ la mm. te communication loolu mooy valeur am communication du wax ju bëri communication wax juy jëf la maanaam communication da ngay fexe ba yow li nga doon ak li nga bëgg ñu fexe ba ñeneen ñi xam ko nangu ko te tey fi ñu toll nii askanu Sénégal ñi ci gën bëri lool lool lool xam nañu président Macky Sall xam na liñ bëgg nangul nañ ko ko te ñu koy jàppale. ndaxte wax naa la ko mm-hmm. fu wax naa la ko fu mu laajee baat bi réew mi réew jox ko ko wax naa la ko képp kuy ñoñam coalition de parti élection législative mbala référendum lépp lu mu teg ci table bi sénégalais na gonga kon kooku kenn mënul wax communication baaxul yàlla nag moo def kenn motul nit motul te président Macky Sall ak ñi koy liggéeyal ay nit lañ rek de temps en temps xëy na du ñàkk dina am loo xam ne nii xaw na xajam waaye la ca xajam loolu warta tax ñu jël lekk bi yëpp tuur ko. dañ koy seppi. Mhm. daal di koy teg fële jëm koo amélioré. ñu ñëw ci laaj bu mujj bi xëy expert nga wax naa ko sànq ci wàllu communication justement tey noo jàngatee liggéey bi tas euh, katu xibaar yi di def euh, ci lu ciy gën a bëri euh, jëm ci information yi ak ni ñu koy traité ñu bëri yenn saa dañ koy ñaawlu ndax yow bokk nga ci ñooñu bu ñu sukkandikoo ci xam bi nga xam ni moom ngay wesaare jëm ci wàllu communication. waaw man Fatou du ma ko ñaawlu ndaxte pour man ñaawlu defarul dara. ñaawlu taxut lu ñaawoon baax man dama koy rafetlu ndaxte jàpp naa ne bu amee benn bu ñaaw am na téeméer yu baax boo demee ba ñu ñëw ne presse nga bokk public mala nga bokk privé ñu ne presse ak journaliste dafa am une mission de service public ça veut dire que ñii dafa am loo xam ne nii askan mi ak mi daleen ko nangul dénk leen ko du kenn mala ñaar mala ñett du def tuuxi doon na mala def ñaaxum ma ñëw ñàmbaas ko ci presse yëpp dañu am une presse professionnelle boo xam ne mi ngi def liggéeyam di accompagner démocratie sénégalaise di permettre citoyens ñu am accès à l'information man dama naan gàcce ngalaama li am solo mooy presse bi ci seen i biir am nañu seen i mécanisme am nañu seen i kuréel pour indi yenn solution ci yenn problème yi nga xam ne ni am na te jàpp naa ne problème fondamental peut-être bi am mooy daf ci am ñoo xam ne dañ leen rax te nekkatuñu ay journaliste daf ci am ñoo xam ne nii dañuy bëggoo journaliste rek li ñu li leen di dundal jógewul ci pratique journaliste te convention yi am chaque yi am yëpp da ne journaliste mooy ki nga xam ne nii li ëpp ci li muy dundee ci liggéey journaliste la koy jëlee moo tax nag ñooñu di mbubboo métier journaliste te duñu ay journaliste peut-être loolu rek na amul mën a xarloo su ma koy xool exemple bi may jox mooy sama mbokk suma xarit Pape Alé man jàpp naa ne nekkatul journaliste parce que li muy def ay genre d'opinion lay def ay chronique ci rajo bi wala ci internet bi plutôt di xaste di ŋàññi régime Macky Sall te du leen tendre la parole li mu xalaat lay wax di ko wax pour ñenn nga xam ne nii neex nañ ko am lu neex di ko wax pour nga xam ne nii jàpp na ne àndul ak ñoom ñooñu amul leen metti loolu daal problème éthique yooyu et déontologie yooyu ci ñi nga xam ne pour pourtant c'est une minorité loolu laa gis li koy firndeel mooy livre bi mu bind jàpp ne kut moo tax mu bind ko livre bi boo ko xoolee ba ca biir da ngay gis ne livre bi da koo bind pour sargaal na fi moom Keita a wax ko directement donc ay détournement d'objectif des fois day am ci une minorité de la presse Pape ale doon li nga xam ne nii moo koy moo koy personnalisé moo tax ma ne ko su ma sañoon mu ñëw ma ñëw ñu toog def débat waxtaan ci livre bi ma génn li nga xam ne ni loolu laa xalaat ndax nit balaa nga koy waxal la ca dàq mooy mooy mooy moom mu teew waaye da manière globale man li may wax mooy presse sénégalaise léegi bu guerre amee mbala conflit sax Mali mbala Guinée mbala feneen da ngay gis ay journalistes sénégalais yu fay dem da ngay gis ay journalistes sénégalais ñuy liggéey des fois dans des conditions très difficiles parce que sacerdoce la parce que engagement la da ngay gis manifestation am nit ki ne sa doom toogal sama kër ndax wóorul waaye journaliste bi kenn du ko wax toogal day dem couvrir événement bu ñu nangu benn mbala ñaar mbala quelques problèmes tax ñu ŋàññi liggéey journaliste feneen fi ñu am problème mooy ci réseaux sociaux yi nag li tax peut-être problème yu bëri mooy journaliste mbala rédaction dafa nekk koo xam ne dañ koy tàggat dafa nekk koo xam ne nii dafa am charte bu muy respecté dafa nekk koo xam ne ni dafa am ay kuréel yuy def régulation mais loolu moo amul ci réseaux sociaux yi looloo tax nag peut-être jafe-jafe yu bëri looloo tax problème yu bëri waaye du tere man jàpp naa ne réseaux sociaux yi dafa nekk benn avancée démocratique considérable ndaxte citoyens yi soxlaatuñu kenn taxaw ngir ñu dégg seen baat ñoom ci seen bopp la ñuy wax ñu dégg seen baat loolu képp koy nekk démocrate da nga koy nangu. Mm-hmm. li ñu war nag ñun ñu nekk ci nguur gi mooy ñun ñoo war a améliorer ñun ñoo war a gën a prendre en compte cette dimension. Mm-hmm. président Macky Sall def na ci ay jéego parce que wax naa la ko sànq musul am lu ñuy woowee communication digitale ci Sénégal. Mm-hmm. ci Macky Sall la commencé président Macky Sall nekk un président connecté ubbi des comptes partout permettre Sénégalais loo xalaat nga wax mu dégg ko mu neex ko ak mu naqari président Macky Sall nekk koo xam ne nii bés bu nekk. ñu ngi jéem a créer la relation toogatul rek jël ses comptes ci bind information bi ñu jox askan wi waaye tamit day permettre askan wi tamit ñu laaj ko li ñu bëgg laaj ko li ñu xalaat mu mën leen cee tontu. donc ñun li ñu war mooy bés bu nekk ñun ñi nekk ci nguur gi mbala ñu ŋànk nguur gi ñu dénkuñu ko ñu ñoo war bés bu nekk di góorgóorlu waruñoo toog naan dañuy naqarlu ndax naqarlu fajul dara. Mm-hmm. ñun ñoo war a adapté wu. Mm-hmm. ñoo war a góorgóorlu. waaye bu amee lenn rek lu may dénoncé comme ni ma ko waxee. Mm. mooy ñi nga xam ne nii dañoo rax. Mm. ci biir journaliste yi. te nekkatuñu ay journaliste waaye journaliste professionnel yi ñun waa góor rek ak gàcce ngaaraama lan leen di wax jërëjëf Mamadou Thiam ñu ngi lay gërëm maa ci waxtaan wi itam am na solo fàttali jusque ni jiite woon nga fi cellule communication bu présidence de la république euh, yaa ngi itam euh, bokk ci tey cellule communication Benno Bokk Yaakaar au delà de loolu yëpp aussi expert nga ci wàllu communication politique ak euh, publique amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi jërëjëf ah, mbégte bi ci